Sénégal Sénégal gis nañ jamono ji li fi xew wax naa ko sànq ci vidéo bu njëkk bi gis nañ bu baax également ci coow li li ko indi ba manifestation yi am mais il faut connaître une chose je parle pas de l'affaire Ousmane Sonko moi j'entre pas dans le détail dans euh, le fond du dossier ci affaire Sweet Beauté maase na ko maase ko loolu c'est entre eux Ousmane Sonko ak aji Sarr ak yàlla suñu borom ñoo xam la fa xew loolu sama yoon nekku ci maintenant nag euh, lu jëm ci li nga xam te moom moo di mbir yi ak li xew nii euh, pour mën manifestation yi il faut connaître une chose même bu dee tey sur le plan politique mën nañu natt ne Ousmane Sonko a réussi donc euh, euh son son jeu politique parce qu'il a fait ce qu'on appelle une bataille politique parce que pour moom il est il fait face à un leader politique boo xamante ni jàpp na ne il y a un complot d'État orchestré qui ne dit pas son nom donc maintenant il fait face à un leader politique boo xamante ni am na lu ko metti moo tax bu dee dañ ko doon jox nag mën nañu jàpp ne Ousmane Sonko a eu 10 euh, sur 10 wala 9,5 ci wàllu note parce que il a fait il a eu, euh, eu réussi sa bataille li ci toftalu di manifestation bi ci am ak xale yi ku nekk xam na ne il faut connaître une chose pour man jeunes yi génn yëpp génn yëpp ci réew mi dimanche di def manifestation parce que tout simplement dañu am lu leen métti gis nga ko fanaanal la def maanaam dañu gis Sonko nekk lelement déclencheur de cette situation dafa nekk dafa mel ne ngay tëdd rek wolof dañ naan maa ngi lay lemtu rek maa ngi lay lemtu rek ay bu ma la jàppee ba gis nga def benn tooxi doona rek ñu jaar fa donc Sénégal dañu lemtu état bi metti ci euh, vraiment les conditions de vie lañu la ñu sonn ñu génn nag béjji seen meru xol moo a xale yi nga gis ñu génn parce que tout simplement ils sont des jeunes ya y a un de mes confrères qui l'a dit et je salue vraiment euh, sa son intervention on ne peut pas gouverner contre des jeunes te ñoom à chaque fois qu'ils viennent au pouvoir li ma gën a mettre leur premier euh, euh, kii les leur premier euh, projet yi teg dañ naan pour l'emploi des jeunes nañ wax leen gis nga dans ce gouvernement du président Macky Sall combien de projet projets combien de projet la ñu teg yoo xamante ni dañ ne c'est c'est donc day dem dans le sens di d'aider quand même wala de résoudre la question de l'employabilité des jeunes yu bëri la bu yàgg bi mu fi mujjee def 31 décembre mu créaat beneen structure te ba tey xale yi génn ci mbedd mi mooy wane ne xale yi xale yi dañoo mer xale yi dañoo mer gis ngeen ko nii ci manifestation yi gis ngeen leen ni dañoo mer dañoo mer xamu tax parce que tout simplement dañ gis promesse yoo xamante ni c'est voué à l'échec amul benn réussite xale yi génn di ko wane. bu doon tey ji projet yooyu réussir na habitude nañ ay ay fonds de garantie ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay presque structure yu dul jeex ANPEJ kuréel yu dul jeex mais xale yaa ngi ci mbedd mi xale yi dañoo am désespoir dafa am contrat de confiance bu leen léewoon ak l'autorité étatique maintenant cette confiance est rompue donc parce que ils ont compris que euh, démission bu état la ñu gis par rapport à leurs préoccupations alors qu'ils faisaient un cheval de bataille pendant qu'ils mener leur campagne électorale loolu moo war a jeex il faut aider les jeunes xale yi dañu nekk ci kër yi yore njaboot euh, comment def nekk njaboot ah war aw parce que da ngay gis ne xale bu ne ci kër papaam di koy yor ba mu sax sikkim mais dafa métti il doit prendre le relève il doit quand même continuer hmm, def projet yoo xam ni papaam demee ba yor njaboot mu yor njabootam yor njabootam mais c'est difficile dans ce pays les gens sont fatigués xale yi loolu la ñu wane dañoo wane ne dañoo mer te ki ñu mere du kenn ku du état bi moo tax ma naan du ma wax suñu parce que dafa nekk l' élément déclencheur mais sénégalais yi dañoo dankoon fanaanal loolu nag c' est un avertissement l' état doit prendre tirer des enseignements de ce qui s' est produit durant ces derniers jours et je ne pense pas que cela est déjà et, et, donc en stand-by pour man et arrêté je pense que dañu nekk peut-être stand-by mais je ne pense pas que cette jeunesse franche que j'ai sur le point de reculer et l'État doit prendre toutes les précautions, les dispositions nécessaires pour satisfaire, satisfaire quand même à leurs préoccupations. loolu mooy wax ci njàmbat yi président l'avait dit l'avait redit toujours mu wax ko xale yi nga gis ni ñu sànni ay âge tranche d'âge 16 ans quinze ans nekk nii ci mbedd mi di taxawaa di di sànni xeer parce que dañoo sonn dañu mer dañu mer il faut ñu aider leen ñii seen jàng yàqu na parce que lan dañoo désespéré parce que Sénégal gis nañu boo politique doo tekki qu'on se dise la vérité boo politique doo tekki boo demee États-Unis dañu naan la qu'est-ce que lan nga mën liggéey ñu encadré def lu ñuy wax école entreprise la chef le président Macky Sall annoncé woon na ko kenn déggatul loolu di jàng di mën di liggéey nga xam ne boo génnee xamuñ diw nga sant xamuñ diw nga kii compétence bi la ñuy wër bu dee tugal France dañuy lijjanti ay diplôme jàngal ba kii ban diplôme nga am fii nag ku loon ku ñu boole ku ñu boole nga nekk ci dina politique di yuuxu falu mu fal la nga yor sa oto yor sa kër tabax xale yi xale yi dañuy désespéré wu dañuy mer dañu sonn parce que da ngay jàng ba sonn du la jëriñ dara comme mi demande nga gis xale yi di demandé dem pour déposer société amuñ benn liggéey sonn désespéré ñuy jël gaal gi dem mais ils sont fatigués et que l'État moom moo war a garantir seen seen seen seen seen bien-être parce que moo diggee kenn saxalu leen lem ñooy demandé fal leen ma bu gën ma falee nii nangam sàngam 5000 emploi 500000 emploi wala 400000 emploi bu amoon nii nañ génn di sànni xeer tontu leen ma rek bu amoon nañ génn ça veut dire que il y a l'échec des politiques publiques de la part de nos gouvernants et que cela doit cesser définitivement il faut que loolu nag mu jeex mënuñ depuis 60 on on est toujours dans cette bataille di xeex di xeex ba kañ Sénégal dëkk bu am richesse am jeunesse. am ñaanu kilifay diine yi wax dëgg fa yàlla mosuñu am guerre civile war nañu mën a nag jël suñu matuwaay jàppale askan bi tontu seen seen jafe ñu tontu ci loolu mooy wax ji buñ ko waxul waxuñ leneen maintenant nag leneen li ma bëggoon souligner mooy aussi je ne suis pas d'accord tamit ci yenn yàq yi dëgg yàlla war nañ mën a manifester wu suñu colère parce que il faut eh, eh, quand même faire la part des choses manifester ak banditisme wala vandalisme bokkul c'est des choses différentes voilà donc kon sénégalais yi wane nañ dëgg ne dañoo sonn ci état bi état bi faalewu leen seen i soxla tontuwu ci politiciens yi la ñu gën a teg wekk jàngal ba sonn amoo fi njariñ yuuxula la politicien yaay tekki loolu moo war a jeex ñuy tontu ci préoccupation sénégalais yi fexe ba nan la ñuy def ba courant bi mu yomb ci nit ñi nañuy fexe ba li nga xam moom moo di njàng mi ku bëgg a jàng jàng anam bu jaax yoon nañuy def ba li nga xam te moom moo di faju bi ku dem hôpital Covid baa ngi kenn waxatu ko soxtal duñ ko euh, ku dem hôpital mën a faju ci anam bu mucc ay doo sonn ku dem euh, dem bëgg dikk bi neex nit ñu du am problème ku bëgg tukki këyit du métti si te ñoom bu ñu bëggee tukki si fii heure bu leen neex ñëw complexe boobu moo fëre deñ il faut que ñu jàppale ñu jàppale bu baax a baax euh, sénégalais jeunesse surtout jeunesse parce que ñoom ñooy relais bu mag ñi bu naan sunu maam yi ba tey te ñun waxuñ suñu bopp moo am ñun ëllëg ñun kon ñun suñu njaboot yi si ñan la ñuy wax si ñan la ñuy wax il faut que ñu jàppale ñu il faut que l'état dañu koo dénk di ko fay jox ko suñu armée mu koy garder di ko fay weer jox ko fu muy dëkk kon politique publique yooyu je pense que war nañ ci bañ war nañ ci xeex li ñuy wax inégalité sociale ñu def li nga xam te moom moo di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 gën noo gàtt noo tawféexi sëriñ bi